suñu yéene ci réew mi ñu mën ko dox ba mu mot ndax jàmm ji law fépp teraanga gi law fépp ba Sénégal gën a jëm kanam lii mooy suñu yéene ci réew mi te pour ñu mën ko doxal faaw ñu jot si kon xulowuñu si xeexuñu si waaye yéene bu rafet boobu daal lañ bëgg a jottalil Sénégal te xam nañ ne boo ñu si ñaanalee incha yàlla mën na koo yombaloon lool Mbàkke moo moo waral tànk yi ginnaaw bu ñu ñëwaatee feddale la suñu taalibe bi nee na président jaajëf nee na li nga baax bëgg lu baax rek la bëgg lu yaatu bëgg loo bokk ñépp ñëpp nee na loolu dara gënu ko nee fii nag moom fii mooy yaakaaru réew mi ci lu wér nag nee na fii yaakaar du fi tas nag képp ku fi dikk la la tax a jóg lu ne yaa ko xam boo ko doxee na ko war a doxe wax ko jëf ko yàlla na la ci dimbali nee na loolu rek la ndax réew mi ñépp ko bokk Euh, ndax sëñ Touba. ndax sëñ Touba. dara ne fu ne. da daan ne fu dara ne fu fu fu dara nekk fune ne. rawatina Sénégal gii. rawatina rawatina Sénégal gii. moo ko moom. nee na loola sëñ Touba moo ko moom. ci lu wér. kon nanu am yaakaar rek. ci li bëgg. mu te wut ko. wutin ah, wu rafet nag. wu ànd ak jàmm ak tey sëñ Tuubaa nag nee na kenn mën koo nax lépp lu waay bëgg te mu tax laa jóg nga dikk ci moom yàlla mën na la koo may nan jàpp ci loolu rek te am yaakaar te bañ a xuloo bañ a soow bañ a xeebaate lépp nekk benn rek te jéene ci di jenn wasalaam. jokkoor Abdoulaye Salam bar la war bëgg laa nax ba war la rek a di nar. ku noo dellu yàgg yàgg dali war jagu ko murus ba dee di la ku maa dellu yàgg yàgg dali war jag ko murus ba dee di la war nañoo xam ne. ñoo la kàttan ëppale yëf te seeni biir ëpp say war na ay wàlli ki boo wari kàngam wari baat wolo war giit wari eefar war na feraw na am ñu kem labal leen